jërëjëf euh, Abibou jërëjëf Ismaïla jërëjëf yéen ñi fiy teew ñëpp euh, di leen sant di leen gërëm naaj bi tàng na mais teewul ñëpp a ngi toog et li ñu ko jaral xam nañ ko yaakaar naa ne aussi dëgg la Pape Alé moo ñu fi tax a teew waaye aussi ñun suñu bopp aussi moo ñu fi tax a teew. ndaxte ëllëg ñun ñi ñëpp mën nañu retrouver en prison. Euh, xam nañ ne journaliste lañu et traitement de l' information moom saa su nu ne mën nañ ko jotee information et bu dee nag nu ne mën nañ ko jotee information. traitement bi mi ngi soob ci en tout cas technique yi nga xam ci ne moom la jàng ñu ko wax di ko pratiquer. bu yàlla defee nag ñu jot ci information yoo xam ne secret défense la wala ñu naan estampillé secret te ñu war ko génne moom intérêt pour population bi dañ koy génne. donc bu jaree ñu war a dem prison nañu xam ne nañu yaatal prison yi. raxas ka te préparer accueillir ñu te xam ne dinañ dem prison ñëpp. waaw et nag mbir mi du Pape Alé mbir mi administration ñëpp ci yem donc xeex bi yaakaar naa ñu ñëpp a war a génn jàpp ci di xeex léegi nag wax dëgg fa yàlla ñi fi jàll ñëpp dëgg nañ liñ jot a wax et aussi am na solo et boobu léegi aussi je pense que on est très responsable et il faut quand même ñu xam ne bëgguñu dem ci ay action non conventionnelle action non conventionnelle nag ku ne xam ne lu mu wund et bu bu ko laajee dinañ ci yegg et ñi ngi am yaakaar que ajjuma buñ ko dégloo nañ ko bàyyi mu ñibbi këram dellu ci njabootam mu faju ba retrouver waat santé am ndaxte kat ku ne xam na ne presque une semaine grève de la faim xam nañ li muy def ci yaram et vraiment commencé na sonn et yaakaar naa ne bu doon ci woon ne état bi am na yërmande kon doon nag bàyyi mu ñibbi bu yàgg waaye nag c'est dommage parce que vraiment jëm nañu lépp xeex nañu wàcc nañ ci tali bi def nañ marche taxul mu bàyyi ko def nañ médiation taxul it mu bàyyi ko engagé na grève de la faim et xam nañ lu ci nekk lu nekk ci grève de la faim ni mu grave et tey jii nii dañuy dañuy dañu ragal ne sax en fait euh, état bi leneen la bëgg loolu lay nuru waaye bu soobee yàlla mun na bañ am li ñuy wax nag ba wax mooy maanaam que su ko bàyyiwul sa année euh, semaine prochaine ñu ngi jëm ci ay action non conventionnelle lii di collectif Free Pape Alé ak CAP ñu ngi waxtaan et yaakaar naa ne semaine bi sax waroon am action non conventionnelle waaye heureusement ba ñu fixé datu audition bi loolu moo tax ñu tegg suñu tànk mais bu du woon loolu kon jamono ji tey kon leneen la ñuy wax kon da ngeen dégg ne kon tey coor ma ma ca prison ba wala Maguette mu ngi ca prison ba wala sa fay mi ngi ca prison ba ndaxte kon xamoon naa ne te kon tey ji nii tey tey tey tey action bi bu ñu ko day def ñoom Abibou ak ñeneen ak ñoo fi ñëw taxaw di ñu wax firi Pape kese mais nañ ci boole firi coor nañ ci boole firi màgget nañ ci boole firi liisa ndaxte booba kon li ñu war a def kon gëm naa ne dañuy jàpp yóbbuñ ci kaso ba et loolu la aussi nag duñ ko bàyyi bu dee libéré wuñ papaale ñi ngi wax boycott des activités gouvernementales suñu réunion bi passé euh, xalaat nañu en tout cas décréter au moins 48 heures fii ak semaine bi di jeex dinañ ci waxtaan ak ñi ñu ci war a waxtaanal vraiment parce que aussi boycott activité gouvernementale mhm. wala journée sans presse doo ñëw rek sànjaafu ko noonu am na ay action yoo xam ne moo ko jiitu balaa nga ci yegg et ku ne xam na quand même bi yaatu na njaboot gi bëri na mhm. et euh, bëri na vraiment yoo xam ne war nañ ko mën a lijjanti suñu biir ba mu ñoŋ ñu mën a dem journée san presse boobu noonu def lu ñuy wax maanaam euh, euh, journée sans presse ak aussi boycott des activités gouvernementales et bu ñu yaakaaree nag que dañuy boycotter activités gouvernementales yi rek yem ci nag mhm. dañuy nax seen bopp parce que commencé nañu rencontrer les ambassades mm-hmm. et liñ ñu wax dégg nañ ko et yaakaar naa ne gouvernement bi jamono ji ñuy wax ni war na jot message mm-hmm. et it am na aussi yeneen kuréel yu mag mm-hmm. yoo xamante ne ñi ngi mel ni ay Reporters sans frontières ñi ngi mel ne Media Foundation ñooñu ñëpp aussi bind nañu état bi bind nañu euh, CEDEAO bind IFEX bind congrès américain bind ñi nga xam ci ne aussi ñooy Union européenne bind ñëpp ñoo xam ci ne en tout cas ñu ngi défendre liberté la presse liberté de manière générale dans le monde en Afrique et ici au Sénégal mm-hmm. et yaakaar naa ne message yooyu noonu yëpp mm-hmm. muy Media Foundation di Reporters sans frontières di corps diplomatique yi xanaa état bi mënul euh, fàtte loolu yëpp vraiment euh, bañ ko bàyyi xel mm-hmm. et yaakaar naa ne aussi ki nga xam ci ne mooy assemblée nationale muy opposition di pouvoir di ñëpp. Mhm. aussi ñoom war nañu aussi jóg. wax ak le président de la république wax ak yi nga xam ci ne aussi mooy garde des sceaux ñu bàyyi vraiment Pape Alé Niang mu ñibbi këram ndaxte 31 jours de prison ëpp na. et loolu ci Sénégal kese la am boo jëlee euh, pays Afrique de l'Ouest yëpp war nga këpp tey jii rek fii rek Sénégal rek la am journaliste bu nekk prison. et loolu lu ñaaw la. par rapport ak way bi nga xam ne Sénégal moom la amoon et tey jii nii suñuy partenaires yi ak ñi nga xam ci ne vraiment ñoo yàgg di liggéey ak Sénégal fu Sénégal toogatee di wut dara dañ ko tegal ci taabal bi que kat sa dëkk léegi dañuy teg journaliste ci kaso bi ci exercice de ses fonctions et loolu ñaaw la lu ñu lu ñu lu ñu loo xam ci ne yaakaaruñ ko woon mais am na ay wax dëgg fa yàlla nag semaine bii mooy daj dëpp bi dañ koy bàyyi vraiment ñëpp delluwaat suñu liggéey ñëwaat taxawaat ci li ñuy wax assise des des médias mm-hmm. vraiment organisation suñu métier bàyyiwuñ ko nag ñu teg fële assise des médias bi dugg ci beneen beneen anam ci xeex et boobaa dina gën a tar ndax dinañ gis leneen am na yoo xam ne moom duñ ko wax mm-hmm. mais da gis ne carrément que xeex bi dina tar tar boo xam ci ne gëm nañ ne nañ jàpp nañ fi jàpp ay journalistes yu bëri dugal kaso bokk bu dee kaso rek lañ bëgg nañ préparé kaso yi te xam ne nañ dem kaso incha allah mm-hmm. voilà merci merci Lissa merci. Euh, donc ma jëm nga tënk ci français euh, euh, en fait ce que je veux dire c'est que la lutte